Euh, lu mu liggéey nii am na lu si baax am na loo xamante ne mën na si wax surtout sur le domaine immatériel et même si le domaine matériel. le ah. bilan immatériel mën nañ si wax. bu baax a baax en termes d'infrastructure. en on peut parler de certains montages. Ah. mais bu fekkente ne def na lii yëpp ni man daal kii laa gis moo gën pour Sénégal. les Sénégalais peuvent apprécier aussi. Mhm. dans la continuité les Sénégalais peuvent apprécier parce que Sénégalais lu ñu bëgg tey. affaire bi bu bu demoon ba lépp rees Sénégalais yi commencé réfléchir mais ñun kii moo ñu gënal ñu ne ñun Sonko ñu ne déet man kii moo ma gënal. clarification je pense que bon maintenant si le président travaille pour lui-même pour revenir bon loolu gawma ko. parce que pour moi c'est c'est lourd de sens pour moi c'est c'est très très très très lourd de sens. et l'incidence sur euh, Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall n'a qu'à comprendre qu'il a pris de l'envergure à lui d'assumer une consistance politique et de savoir s'il dérange ou pas et qui il dérange. Vous pensez qu'il est assez préparé euh, Keroog ba nga ko gisee muy def euh, conférence de presse am. Euh, Pape Djibril réussir na fu politique yu bëri échoué ah. il est député première tentative député am na ay politique yoo xamante ne ñoo ko ëpp tour gën ko fi yàgg lépp lépp lépp. peuvent pas être députés. Ça veut dire mm-hmm. beaucoup de choses. Mm-hmm. Maintenant, Lucides na xam que il est en train de prendre la place xale la xale yu bëri ñu koy seetaan il y a des enfants qui des jeunes qui l'aiment qui qui se voilà qui s'identifient à lui c'est à lui de savoir maintenant caaxaan faaxee na na assumer wu. Mm-hmm. assumer le bopp waaye na xam que politique la nekk te politique. rivalité Pape Djibril Fall Sonko parce que on dirait aussi que. ñu bëri del lañ ko xaar pour mu ranger wu si côté euh, euh, kii di Ousmane Sonko les gens le prennent voilà le bon. mot est assez lourd pour man wax ko pour un traître. bon Ousmane Sonko c'est ak Pape Djibril Pape Djibril la de de la war na dox. Ah. war na dox parce que Ousmane Sonko dafa réussir lu bëri ah. Ousmane Sonko a réussi na benn adhésion autour de sa personne nit ñi bëgg ko. Mhm. mu réussir beneen adhésion c'est autour. de son projet politique de plus en plus ñu ngi dëgg ay nitam et ce sont des gens de qualité parce que c'est vrai que mun nañu ne am na ñu bëri ñoo xam ne saaga la mais boo fa nekk waa Sonko ay waa ay mhm. saagakat rek ñoo fa nekk ko on se trompe. il y a beaucoup de cadres. il y a des gens de qualité. ñu ngi leen di dégg et franchement c'est intéressant à suivre. Mhm. mu am parcours bu mu def. seule tache d'ombre de Sonko c'est cette parenthèse. cette histoire cette histoire ça. c'est une tâche dans le truc politique de so mi ko sénégalais ñoom ñooy apprécier mm. maintenant nag am 15 pour cent aussi en 2019 à la présidentielle c'est pas peu pour mm-hmm. une première tentative mm-hmm. c'est pas peu donc ñëw taxaw tey ne comparé ak euh, Ousmane Sonko euh, bon je veux dire que il faut pas il faut quand même revoir les choses ouais. par contre Pape Djibril Fall a le droit d'avoir une aspiration et des ambitions politiques mm-hmm. il a le droit. Il peut apprendre tout seul, il peut apprendre derrière quelqu'un, encore que derrière quelqu'un doo jàng dara surtout politique bi ñuy def tey Sénégal. surtout oui c'est c'est c'est n'importe quoi. Mm. mais il peut apprendre il peut apprendre. il peut apprendre ramasser des coups prendre des coups apprendre à en donner avoir de la consistance et puis Dieu sait Dieu seul sait. Mm. waaw. Charles euh, dañuy tëj ak benn question boo xaw a bu boo doon def euh, voilà benn euh, analyse par rapport ak euh, li nga xam ne mooy le lendemain de la politique au Sénégal wala sax lendemain surtout les jeunes nga xam ne fu mu toll nii dañoo am li nga xam ne ce besoin de de de réussite de voir le pays émerger. ban euh, si si ban axe nga nga nga koy teg pour voir euh, toute ces euh, toute cette jeunesse sénégalaise nga xam ne mu ngi fu mu toll nii mun nañoo wax ne elles essaient de de de se battre et de s'imposer hmm. man il faut que nous révolutionner la ça faire de notre jeunesse mm-hmm. les meilleurs meilleurs ouvriers ne mais parce que ñëpp ñu nekk docteur on perd du temps docteur sol costume cravate on perd du temps la Sénégal dañ koy liggéey dañ koy tabax. te laa ñu ngi ñëw si réforme si wàllu système éducatif bi. wàllu système éducatif ça veut dire que tey lu ñu war a def mooy que suñuy doom suñuy doom yi suñuy sët ak lépp na ñoom ñëpp dem école obligatoire ba 16 ans maanaam ba ba troisième. Mhm. obligatoire munoo mucc di dem. troisième di nga fa àgg à vingt ans vingt cinq ans sa affaire la mais di fa àgg. loolu c'est la chose. ñu xool troisième ñoo xamante ne mënuñu dem ba terminal ñu xool loolu leen di jàngal nga nekk mécanicien mais mécanicien bi fu mën nga nekk menuisier mais menuisier boo xamante ne Afrique bi yaa fi mën. tous ces métiers là bu nekkee jigéen nga ñu yóbbu la dans le domaine de la mode yaa fiy mën on te donne des choses qui. qui amène qui ki yoo xamante ne da permettre yow nga mën a liggéeyal nit wala nga mën a liggéeyal sa bopp wala tout simplement nga jóge fii dem Gambie bi mhm. wala dem Guinée Bissau dem Guinée Conakry nga dem n'importe où en Afrique comme cela se faisait sous Senghor mhm. ci ay jamono yoo xamante ne xale yi bu ñu ñun bu ñu suñu génération da ngay jàng ñu jàng euh, Delafosse ñoom ñoo dem tabax ji ay dëkk lu euh, mu tudd ñoo dem Cameroun mhm. boo déggee Ngoma Ngom la boo déggee Mboma boo déggee mbiye mbay la ak boo demee Congo pareil boo demee Gabon pareil Cameroun pareil voilà ah. loolu yëpp c'est c'est des choses il faut tout de suite pour moi assurer la meilleure formation de nos jeunes cultiver aussi Charles tolérance beneen affaire boo xamante ne war discipline surtout waaw mais xale yi dañ leen ñun ñoo leen parents yi ñun ñoo leen solal parents yi ñoo sonal ñun ñoo sonal suñuy doom. et les réseaux sociaux aussi. les c'est après. Ah. xam nga réseaux sociaux da ngay am jotam pour foo pour ree wala wax lu bon. Mhm. mais parents yi ñun ñoo sonal suñuy doom. comment ça gis nga suñuy doom dañ soxla espace joxuñu leen espace suñuy doom soxla terrain football joxuñu leen terrain mhm. football. suñu doom soxla terrain kii voilà soxla cinéma amuñu cinéma dañ soxla noy dañ soxla set boo nee xale ne énergie mhm. énergie googu mais bu fekkante ne joxoo ko amul fu muy football fu muy basket fu muy dem théâtre fu muy dem cinéma fu muy kii bu amul loolu nekk si ay seere mais day exploser là il faut quatre li ngay wax noonu cadre loolu loolu état moo koy tabax. waaw mais je je un environnement. d' abord y' a le projet familial. tout commence à la famille. loolu tax ma ne ñun suñuy doom. tout commence à la famille. Mm-hmm. Après, l'État, par rapport à nos contributions, on mm-hmm. est sans, on est moins de 600 000 à payer d'impôts directs, mm. réels. C'est très peu. Donc après, c'est de fil en aiguille. Mais, ce nous sommes tay dañuy wax état mais bo waxé état rek djum nañu c'est pas vrai. Il faut que y a beaucoup de choses à faire mais il faut que nous nous commencer. Donc si nos enfants n'ont pas d'espace da ñëw fii fi ñëw naa fii sax fan ngay trouver terrain basket fii. fan ngay trouver terrain football fii fan nga fi am parc fan nga fi am fo gratuit ay gratuité amul. mais mhm. eh on peut pas concevoir un pays ba lan des politiques aussi loolu tax ma ne la sànq faw ko ñu xool programme nit ñi. Mhm. profil politiciens yi. Mhm. Euh, lan la ñuy proposer. Euh, euh, si wàllu aar lan la si wax si wàllu culture lan la si wax.